fédération nationale des arabophones di Sénégal moom moo fi daje bi wax ci turu arabisants yu nekk Sénégal yépp ak foo mën a bokk moo xam dangay politique moo xam politico moo xam ci pouvoir nga nekk moo xam ci opposition nga nekk ñun fédération nationale des arabophones du Sénégal nag dañ fi daje tey ngir wax ak sénégalais yi wax ak kilifa diine yi wax ak sëriñ daara yi wax ak képp koo xamante ne da ngay yëngu ci l'enseignement arabo-islamique bu Sénégal dayeur balaa ñoo sori ñu ngi féliciter di di njukkal bu baax. mooy Cheikh Mahi Ibrahima ñas ci ndam bi nga xamante ne am na ko ci Afrique am na ko sax ci àdduna laa wax ci loo xamante ne wax dëgg yàlla li ñuy naan la diplomatie jéem na jéem na mu të di ko ci ndokkeel bu baax di ko wax ne ñun loolu suñu sag la en tànk ay doomu daara suñu sag la en tant ay arabisant suñu sag la en tànk ay sénégalais ku ci nekk ci yéen dégg ngeen discours bi nga xamante ne moom la def fële ca Soudan ci arab kon loolu ñun dañ koy ndamoo te insha allahu taala dañ ko feete Cheikh Ibrahim yéen waa Kaolack ñu ngi leen koy ndokkeel ci ndam boobu di ko ndokkeel ci arabisant wu Sénégal gi yépp beneen bi aussi di njukkal aussi bu baax suñu kilifa suñu sëriñ sëñ Muntaxa Mbàkke yal na fi yàgg lool te wér Mbàkke ci ngan bi nga xamante ne ñëwoon na ganesi ko Dakar def fi ñetti fan ci Masalikul Jinaan def fi ay ñaan yu am solo recevoir nag association islamique yeeg kilifa yeeg ñépp ku ci nekk ci daw wuti fa ñaan moom it ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér loolu rek lañ bëggoon a jiital yéen journaliste yi comme ni ngeen ko seetloo depuis 2016 wala sax depuis 2014 wala sax ne mën naa ne depuis 2012 ba léegi ñun arabisants yi yu Sénégal dañoo musa jàppale le président Macky Sall ñun arabisants yi surtout man ak ñeneen ñi fi ne ba yàlla dogal mu jot réew mi bi mu jotee réew mi nag am ay engagement yoo xamante ne da ko jëloon mu jëm ci arabisants yi ku nekk xam na ne l'enseignement arabo-islamique bu Sénégal ñi fi génne dañoo am jafe-jafe jafe-jafe ci wàllu emploi jafe-jafe ci wàllu formation jafe-jafe ci wàllu l'insertion da ngay jàng ba am ay diplôme doo mun a liggéey da ngay jàng bi am licence am master boo ñibbisee senegal doo mun a def dara ñun ñu jàpp nag état bu Sénégal wala gouvernement bu Sénégal considéré wul arabisants yi comme ay citoyens comme ñeneen ñi. ñu def ci nag ay combat yu bëri def ci ay tournée yu bëri def fi ay conférence de presse yu bëri fu nekk dem nañ fa ci biir Sénégal amul salle bu nekk fii Dakar te feesaluñ ko bi ji mujj mooy CICES Grand Théâtre teg ay proposition bind dañoo bind bind bind bind ba suñu ordinateur yi dafa am virus fi may wax ak yéen nii fii ma toog ak yéen lii nii ngeen di gis papier yii ay demande d'audience la lii ngeen di gis lii nii yëpp plus de lii plus de trente cinq demandes d'audience adressé nañ ko son excellence de président Macky Sall plus de trent cinq pour mu recevoir arabisants yi mais mbetteel bi ñu ci am ba tax ñu def conférence de presse bii am na kilifa gu mag ci kilifa diine yi doomam moo ñu wax ne président moo ko wax ne moom musuta jot ñun suñu demande d'audience ndeke kon suñu demande d'audience yi foofu ci cabinet bi bu ñu ñëwee rek ñu def ko kumba am ndey kumba amul ndey ñu teg nee loolu métti ñu lool mais loolu sax mun nañ ko comprendre mais li ñu gën a métti tey mooy investiture yi ngeen gis ci élection législative yi amul benn arabisant bu ñu investir ci list yi amul nii Benno Bokk Yaakaar nii Yewwi Askan Wi nii Aar Sénégal nii eh, naataange amul benn liste boo xamante ne danga fa dem nga gis fa maître coranique wala nga gis fa arabisant am na sax ñu sans emploi am na ci ñoo xamante ne amuñu liggéey ci département yi au moins moo tane ay Mbacké ay Touba da nga fa gis ñu investir fi ay chefs religieux mais à loolu amul benn arabisant boo xamante ne nekk na ci liste législative yi ci liste euh, proportionnelle walla suppléant moo xam majoritaire moo xam département moo xam national amul ñun nag loolu jaaxal ñu lool ñu bëgg président Macky nga xam ne ñun ci njabootam la ñu bokk mu wax ñu loolu lan moo ko waral beneen bi président Macky Sall dafa jëloon fi ay engagement directive jox ko ay ministre am ministre formation professionnelle ministre de l'enseignement supérieur ministre de l'éducation nationale boo xamante ne ñun ñii di wax fii ñëpp amul lenn lu mu ñu defal ministre de l'éducation ñun éduqué wuñu parce que ñun suñu njàng ñun ñoo ko fayal suñu bopp. loo defal lépp suñu bokk bopp ba xëy am bac amul lenn loo xamante ne ñun ñi toog fii yëpp ministère de l'éducation nationale defal la ko amul bopp man de amul. ñu jàng arab fii bi am diplôme yi ñun ñi fi toog amul kenn koo xamante ne ministre de l'éducation defal na lépp ñoo ko defal ñoom président joxe ay directives ne nañu xool situation arabisant yi. ci wàllu formation ci wàllu emploi ci wàllu le insertion mais ba jooni yàlla fi may wax nii pendant un an directive yooyu noonu kenn yéeyu ci yàbbiwu ci ministère yi kenn waxu ci faale wuñu ñu lijjanti wuñu wu ñu directive yi nga xamante ne moom la président joxe man ma jàpp ne loolu du wekk président ñoom si seen bopp ñoo respecté wul président donc loolu bokk na ci point yi nga xamante ne metti nañu lool li ñu bëgg mooy daar daar nañu président Macky Sall recevoir pour que jafe-jafe yi nga xamante ne moom la arabisants yi am ñu régler ko ni nga xamante ne noonu la gën a gaawe beneen bi bu ngeen xoolee président Macky mu ngi recevoir ñépp amul kum gis ñi nga xamante ne sax ngeen baal ma ci waxin bi du xeet amuñu juróomi nit président mu ngi leen di recevoir ñi nga xamante ne guddeeg bëccëg ñu ngi koy saaga di ko xas nekk ci réseaux sociaux yi di wax lu ne xëy suba rek nga nga dégg na président recevoir na leen alors que ñun waxuñu président nañu nañu recevoir jox ñu poste waxuñu ñun nañu président defal leen waxuñu mus billaahi musuma bind ku ko am na ko génnee di demander nañu jox poste amul loolu intéressé wuñu li ñu intéressé mooy jafe-jafe yi mais am na ñu sañ-sañ quand wax président Macky na recevoir arabisants loolooy dëgg nañu recevoir audience la ñu bëgg ak moom parce que jàpp nañ ne suñu jafe-jafe président Macky Sall rek moo ko mën a régler amul keneen ku ko mun a régler ku dul moom parce que ñun na xeexuñu nguur li ñu soxla nguur a ko yor emploi la ñu soxla formation la ñu soxla dugg di liggéey la ñu soxla ñun taluñu ay opposition taluñu ay xeex taluñu ay xuloo li ñu soxla mooy suñu jafe-jafe yi na réglé wu te pour que mu réglé il faut que le président Macky Sall recevoir ñu nu mu gën a gaawee loolu lañ bëgg beneen bi gis nañu ne tey ministre yëpp koo dem seeti président day déglu koo waxanteel mu ne la loolu président rek moo ci man dara amul autorité bu nëkk ci réew mi boo xam ne daaw beneen tooguñu ci yow commencé ko directeur cabinet du président ba ci suuf ministre yeeg directeur yeeg ñépp rencontré koo ci waxtaare mu ne loolu président moo ci mun a jël ndogal lettre bii ma leen di woon nii diagnostic la situation des arabisans moo si ne lettre bii biñ ko bindee président secrétaire général jot ko ci la président jëloon ndogal ci conseil de ministres de euh, euh, vingt 27 octobre mille vingt 2021 mu ne communiqué conseil de ministre mu ne mu ngi mu ngi ñaan demande de gouvernement bi pour mu veiller ci situation arabisant yi li jëm ci wàllu formation ci wàllu jëm ci emploi ci wàllu jëm ci les insertion maanaam xool fu ñu leen dugal ñu liggéey pôle emploi yaa ngi fii dangay dem yóbbu sa demande nga bind ko en narab ñu ne la duñ ko jël parce que arabe nga ko bind dangay ngay adressé benn ministre lettre nga yóbbu ko déposé ko ñu ne la duñ ko jël parce que arabe lañ la la lañ ko bind duñ ko jël te arabisant nekk fi jàng man la liggéey man pourquoi duñ leen fa jël ñuy lire lettre yooyu am liggéey loolu mooy dëgg beneen bi président Macky jox nañu ko respect lool mais nag ñun arabisants yi nañu respecté nañu respecté niñ ko respecté cër biñ ko jox jàppale ko naa joxe noonu cër arabisants yi jox leen cër nag mooy mu recevoir ñu agaay fépp fu ko bëgg bëgg nañ ko fa bu ko neexee centre Abdou Diouf Diamniadio bu ko neexee Grand Théâtre bu ko neexee café de nu ko wax ne King Fahd Place bu ko neexee sax arène ba arène nationale place ba mu bëgg ñun pare nañu parce que jàpp naa ne fii ñu ngi ci 300 communes 300 communes 300 communes ñu ngi ci 300 communes biir Sénégal commune bu nekk am nañ fa coordonnateur communal commune bu nekk boo fa dajalee trente personnes loolu ñaata la du neuf mille ñun suñu électoral neuf mille wala dix mil ak quelque la yaxayti am na ñoo xamante ne guddeeg bëccëg président mu ngi leen di recevoir mu ngi waxtaan ak ñoom te alors que ne ñun ñooñu ñoo leen ëpp mbooloo fuuf loolu discrimination la ñàkk wekk arabisants yi la ñàkk leen a jox gëdd la ñàkk leen a jox cër la ñun nag ay arabisants yoo xamante ne ñun lakk bi ñu jàng dañ ko fonk parfois journalistes yi da ngeen di jaawale ak làng arabe ak religion mun nga jàng français bokk ci benn bokk ci benn religion mun nga jàng arabe bokk ci benn religion tey am na pays yoo xamante ne boo fa demee am na ñoo xamante ne araab lañ jàng mais duñu ay musulman beneen kay lañu noonu la amee feneen ñun langue bi langue bi la ñuy défendre mooy suñu outil mooy suñu métier ci la ñu mën a liggéey ñu liggéey ci espagnol mënuñu liggéey ci portugais mënuñu liggéey ci leen li ñu mun a liggéey mooy arab moo tax ñun langue araab la ñuy défendre défendre lu dul langue bi nit nga xamante ne langue française ñu jox ko gëdd jox ko cër noonu lañu bëgg ñu joxe langue arabe gëdd jox ko cër pour que au moins ñun ñu xam ne ci réew mi lañu bokk ñu xam ne ci réew mi la ñu bokk nañ ñu ci boole loolu mooy dëgg beneen bi ma ci bëgg a wax mooy am nañu lu ma man bokk personnellement loolu nag man laa engagé am nañu lu ñu metti boo xoolee list Benno Bokk Yaakaar di liir di liir ba dem ci quarante et quelques places di fa fekk Koura Macky Koura Macky di ko investir ci list koo xam ne moo daq saaga kuy saaga ci Sénégal di saaga sëriñ si di saaga ku nekk mu lay saaga ñu koy investir bàyyi fi ay arabisant loolu man dama ne discrimination la te jàpp naa ne loolu président Macky Sall defu ko ñi ko def nag nañu assumer seen responsabilité président keroog rek dégg ngeen ko muy wax nañu xool naka la ñuy régulariser réseaux sociaux yi ci sa ñiy saagakat yeeg ñiy saaga kilifa diine ak yooyu nga xëy suba yëkkati liste Benno Bokk Yaakaar di fa gis koo xam ne moo dàq saaga ci Sénégal alors que xëy suba gis koo xamante ne moo daq saaga si Sénégal nekk ci directoire bu Benno Bokk Yaakaar alors que ñu ne ñun ñii kat loolu bu leen ci wax yaxayti dañ ciy wax président nag suñu président la ñun ñëpp suñu xarit la bu dee bëggatul électoralu arabisant yi nañu wax loolooy dëgg bu dee ñun li ñu yor président da ko xeeb benn defuñu ci liste yi ñaar investirul benn arabisant ñett mille 2014 ba léegi ñu ngi daw ci benn audience mënuñu ko am nañu wax moom lan la xalaat ci arabisants yi wala ñun arabisants yi lan lañ ko def jàpp naa ne ndam bi nga xamante ne Cheikh Mahi Niass am na ko loolu rek jar na fonk arab bel faw jar na fonk arab be faw loolu amul benn diplomatie bu ko gën a fort wax na ko démb ci discours am nee na intellectuel dëgg-dëgg mooy ci génn ci daara ji kon xale yi nañu delluwaat ci daara bi ñun ñii ay produit daara lañu dara fokkuñu nguur fokkuñu pouvoir fokkuñu ministre fokkuñu président fokkuñu caaxaan yóbbuwuñu li ñu gëm lañuy ñuy défendre mooy luxatu daat la langue arabe loolu nag première acte la beneen bi man yéen presse bi laa wax man loolu man maa ko proposé ànd ak su ko sama mbokk yi fi nekk validé man personnellement dama koy def man président nee na wala ñi ko jege musuta jot suñu benn demande d'audience demande d'audience bii ngeen di gis nii fii lañ ko bidd fii saisiruñu ko tàppewuñ ko bic lañ ko biddee signé ko boole danañ ko boole ak list liste 46 coordination yi fi ne man mii bu ma fi jógee yéen ak presse bi ñu ci pare tànk ak tànk mbagg ak mbagg ba pale ma déposé ko ku nekk xam na tey samedi la mais danaa dem ba foofu bu ko gendarme yi jëlee xayrul bu ñu ko jëloon xayrul président xam ka ne au moins ñun ñu ngi bëgg toog ak moom loolu daal mooy li nga xamante ne insha allahu taala insha allahu taala bu yàlla defee rek insha allah xanaa gars yi bañ koo valider bu ñu ma joxee faveur bu ma jógee fii tànk ak tànk mbagg ak mbagg ba buntu présidence ñu déposé ko fa président yëg ne arabisants yi bëgg nañu audience ak moom loolu mooy dëgg ku ne toog nañu yow mais koo waxtaanal rek mu ne la demal seeti diw demal nga gis diw waxtaanal ak diw neexal ko yaxayti ñun li ñuy laaj ñun ñoo ko moom considération la ñuy laaj nañu recevoir arabisants yi emploi bi ñu dugal leen ci DER bi nañ fa dugal 3 milliards ngir financement arabisants yi ministère yi nga xamante ne ñoo fi nekk emploi nañu créer foo xam ne arabisants yi mën nañu faa dugg pôle emploi yi ngay gis nii nii nii nii nii nii tey amul benn arabisant mu fa ne mu ngi ci 45 département yi département bu nekk bu ñu fa créer jëlee 4 wala trois ku arabisant bu ñëw am idée projet ñu bindal la sa projet loolu di du créer emploi pèlerinage bii di ñëw nañ ci jël arabisants yi ñu liggéey ñu nekk ay missionnaires yeneen ak yeneen yoo xamante ne arabisants yi mën nañu ko liggéey ci biir réew mi loolu lañu soxla soxlawuñu leneen jigéen yaa ngi fi góor ñaa ngi fi coordination yépp ñu ngi fi loolu daal laa bëggoon a sànni ci comme kàddu su amul le keneen koo xam ne bëgg na ci complété dara mbokk yi ñu xam ne daal loolu moo waraloon ndaje bi bu ñu paree bu ñu paree comme li ma leen wax incha allah bu ko mbokk yi validé lettre bii nii ñu bind fii bii danaa ko boole ak liste yi nga xamante ne coordonnateurs départementaux man man ma yóbbu ko présidence déposé ko fa buñ ko fa jëlee danaa ko déposé buñ ko jëlu danaa ko déposé incha allah